tis boo xam ne kayitu mu ngi koy dund yi depuis at lu mat at te ñenn teguñu lu may ay nit ñoo xam ne ay nitu nawetaan lañ muy waa ODCAV ak waa waa ODCAV bu Diourbel parce que yëf yi fi mu démarré ñoom président zone la ñu amoon problème bi ñu amee président zone nag ñu visé waale ASC am injustice bi fa mu tàmbalee mooy PV zonal bi ñu génne te ñi ko doon siégé muy membre commission CRP bi jubóowul ndax booy siégé ab PV de match di nga am rapport de délégué am rapport de l'arbitre am rapport du superviseur anonyme te ñett yooyu yëpp benn tegew ci amul le CRP zonal nag dem woo ay élément biir dëkkam ñoo xam ne am nañ licence boole leen ca commission ba génn lu ñuy wax soi-disant PV ñu ne man dinaa ko signé man leen du ma ko signé loolu aussi waa ODCAV Déthié ak Aliou ànd ceeg ñoom. la ñu wax rek moom moo di ñoom ñile la ñu def day teguñu ko benn yoon ndaxte dañoo yàkkamti ba bind ba baaxul. te dama jàpp ni décision de justice bu génnee li njëkk mooy notification de justice bu doon ci tribunal noonu lay demee bu dee ci ODCAV ORCAV lu mu mën a doon yow tant que juddoo sa PV ba def sa réception signé ki ngay ki la ko jàppal ni amagul effet ñu xaar ba loolu am dimanche cinq ñoom ñu génn seen PV le 18 wala biir. lettre bi ñu bind ñu benn lenn lenn luñ ci mën a def ñu jékki-jékki daal di ni seen PV kenn mënatu koo atte parce que respecté leen les délais yàkkamte guñu sax moo tax moo bi ñu bind moo baa ngi nii lii kenn mënut a xam irrecevable la wala lu ñu bind ñu dikkaat bindaan ni de même lettre ki yin jot PV yin jot délai bi dafa jàll te jotuñu benn PV boo xam ne day dafa am confirmation que ni délai bi dafa jàll le mot irrecevable sax binduñu ko correctement dañ ko programmé woon irrégable lañ bind amu fenn ci RG ONCAV yi fu ni wax ni man nañu siéger sukkandiku ci ay vidéo ak ay photo ñom ñi lee lañ mënta nangu mom modi ñi leen siéger fi ci département bi dem bokkat ci ñi leen di siéger euh, fële ci régional ba toñem nenañu RG yi da koy téré boy atte ODCAF ak ORCAF dañu wax ni bu fekké da nga atté ci première instance deuxième instance waroo waroo ñu gis nga ñaar ñi ma souligné muy Aliou Ning mi ngi ni ak Ibrahima Fall ñoñu atté Bambey tek ñun luñu metti ñu jéggi leen fi jàll bañu ñuy attewaat ñoom ñaar ñu ngi ni dañu leen a souligner mu nekk benen injustice bo xam ne ñun dañ ko dund fofu buñ ci joggé dem ci TV régional bi nga xamni dañ ko génné mais notification décision justice buy génn du par ay WhatsApp nga koy envoyer nit wala ay réseaux sociaux. une décision buñ jël alors que ñom ñoo la gëna xamni membre comité directeur ODCAV benn amu droit suspendre ko. seul commité directeur bi deux tiers yi sax laa wax deux tiers yi ñoom ñoo ko mën a suspendre mais du président Cheikh ñoom waa équipe Cheikh Anta bile nee nañu seen dëkk bile di ceytu dafa mës a nekk dëkk ak jàmbaar te duñu nangooti kenn di fubal ci terrain di ngiraay fekk lañ leen def bàyyi wun ko. insiste ñoom nañ ci jóg ñun nag ñaanuñu kenn dimbal parce que mbéjum kanam la borom a koy fajal boppam mais nag dinañ leen avertir xamal leen na Sénégal gépp xam ne nawetaan ak ñoom nañ ko doon defe loolu moom xewi na moom ñun kenn duñ ñun ay béy lañ kenn duñu ray ci rondal différent ci sa kër ci ci loolu mënut a nekk yëf yi moom du jàll duñ def seen yi def leneen parce que yëf yi ñu laleelee cayte tappale suñu borom weer a dugal wala ñu def ci leneen luñ luñ jóoru def léegi nag loolu moo taxan tey ñu ne dañuy woo presse bi wax ak ñoom ba Sénégal gépp dégguñ ëllëg na bu ñu leen déggee ne ñoom ñi ngi dem terrain di di programmer seen i match wala programmer seen lenn bu soobee yàlla parce que yëpp yi dem na ba dépassé na football boo ko bëggee te fonk ko bu nit ñëwee bëgg koo teg injustice dafa lay jaral nga summi sa mbubb yi nga soloon yëpp. président bile nee na ki nga xam ne moom moo jiite nawetaan ci senegal dal di na koy woo waaye nag ba tey doon togg ko. capturer groupe WhatsApp bi PV bi nekk nga envoyé ma ko ma capturer ko envoyé ko ko jusqu'à présent il n'a pas réagi te tubaab dañu kii ne di moo consent kon dafa ànd ak ñoom mais dinaa la xamal ñoo mën a